di leen remercier ci seen collaboration ak ni ñu taxawoo waa jàmbaar production di nuyu la press surtout la presse en ligne ñi fi teew ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu les téléspectateurs u site internet yi di nuyu aussi les amateurs qui sont au niveau de la diaspora donc mais nag grâce à nos yi nga xamante ne nii ku ci mel ni LONASE ak maison de la jeunesse et autres taxaw nañ ci de telle sorte que ne tey voilà jàmbaar du ne Euh, làmb ji am na lii wala am na la wala am na la mais damay wax ni rek que ni làmb li ci ëpp il faut nga def tour promoteur yi pour nga gis koo xamante ne ni tey da ciy gagné gagné gagné gañe moo je crois pas ci yenn événement yi je crois pas que ni bëri na même si nag bon ñu ngi sant yàlla parce que tey jàmbaar bu organisé li ci am solo rek moom mooy amateurs yi lañ ci xool et les amateurs de la lutte même si voilà amateurs yi ils sont restés sur leur faim mais tamit làmb la làmb mooy doxee noonu tey dañuy ñëw jël am suba jël bañ a am mais loolu noonu la làmb bindoo di wax ne rek ñun lu ñuy organiser lépp lu ñuy def c'est pour les amateurs te champion yu mel ni Lac de Guiers mel ni Siteu boo leen organiser yow mii xam nga yàgg nga ci làmb c'est pas la tey moom mooy rentabiliser loo sa événement il faut trouver d'autres moyens d'autres ressources yi nga xamante ne mën na permettre à la structure bi mën a tey rentabiliser l'événement bon man comme j'ai l'habitude de dire Modou man du ma def bilan financier en public euh, am na loo xamante ne tey structure jàmbaar ñi ngi ci entre nous dinañ ci waxtaan loolu pootum biir néeg la li ma mën a wax daal mooy làmb ji am na ci jàmm jàll na ci jàmm ñaari mbëri bëri nañ ko ci jom ak fulla ngor aussi li ci am am na ci bon même si li gars yi di wax c'est une victoire à la Pyrrhus et autres mais dañu xam ne rek sport la Lac de Guiers grand champion nga xamante ni tey làmb ji moo ci gën a néew ay défaite ak lu ko nit mën a waxal champion la Lac de doo toog fenn dégg ne du champion Siteu aussi dafa ñëw ci làmb ji ñëpp ne ko Lac de Guiers moo la mën mu ñëw wane jom Siteu dafa wane ni keroog ci ténor yi la bokk dañu waxante dëgg te yàlla tax dafa wane ni ci ténor yi la bokk wane ne am na place foofu prestation wane na ko bëreeg champion bu mel ni Lac de Guiers mu joxe combat bu mu joxe di wax ni rek les amateurs sont restés sur leur faim moo tax tey satisfaction globale mënuñu ko am mais di wax ne làmb la yàlla moo dogal làmb ji demee noonu ba prochaine fois. waaw Fadel euh, alhamdulilah ñu nekk lu ñu fi pour benn mbër kese ah dañ fi ñëw di liggéey mbër bu ñu boole rek ñu bëreeg moom waaw mais li ñu gënal li ñu gënal nag moom mooy royal fu mu ne nii parce que loolu moom ñu ci làmb fu bari bëri nañoo suñu morom bëri suñuy mag bëri suñuy rakk kon royal moo ñu desee mais nag lamb moom dafa nekk li nga xamante ne tey des fois da bëgg lii far yàlla dogal doo am loolu yaa ngi dégg kon donc làmb moom buñ ci mëntaam rek dañuy jël mais royal moo ñu dàqal lépp technique moo njëkk te tey loolu wone naa ko man sa baaraam sa benn baaraam bu mag sa bu ma ko jàppee damay bëre pour man dama la si daan waaw parce que loolu mooy technique après puissance yi soog a ñëw puissance nag loolu yax la nit ki mun na ko am mun na ko bañ am mais ñi ngay jëflanteel boo ko amee boo ko amul ñoom xam nañ waaw man fi ma yegg si caaxaan indiwuma fii waaw te Lac de Guiers pour l'instant dama koy joxaat li nga xamante ne moom la moomoon ci man muy mag muy nit boo xamante ne d'ailleurs bu muy bu muy imposer loolu la ko am mais làmb moo ni mel làmb moo nekk loo xam ne xëy na boo leen xasee ba signé rek. waaw yaram bi day tàng xam lu ma la gëm bi day gën a lii mais man sama gëm-gëm ak sama vision mooy man amul mbër bi bëri si arène bi koo xamante ne yow góomal dama lay daan voilà gëm-gëm boobu moo nekk ci man moom laa doxalee ba tey te keroog loolu laa wone te combat bi gis ngeen li gis ngeen li ci xew waaw li ci xew ñëpp gis nañ ko ñun lépp lu ñu war a def def nañ ko man def naa ko boog man loolu laa li ma waxoon def naa ko bëri naa xeex naa waaw mais tey victoire bi nu mu amee du question nag dama saltel victoire jàmbur mais man ba léegi man gëwuma dama daanu gëwuma ko waaw parce que lu tax gëwuma ko mooy avertissement bi ñu ma jox ma am ko te ma mérito ko man dama gis ne avertissement boobu c'est la même chose la am man fi ma doon séntu mooy dañuy dem prolongation ok man sama puissance nag waaw man foofu laa ko commencé imposer. da ngaa nangul défaite bi quoi. du question défaite mu amu fii. defet amu fii danga naan lenn moo am mooy arbit moo jël victoire jox ko Lac de Guiers waaw loolu CNG nangu na ko mais man laa wax man nanguwuma damay daan parce que bu ma ko nanguwoon tëdd naa bu yàgg. xam nga tey euh, euh, CNG suñuy kilifa la ñu ah def naa ne mbër moom boo juumee boo juumee il faut yar dal sa kaw comme nee nañ juum nañ dañuy accepté ne juum nañ rek yar dal suñu kaw waaw loolu la. lamb moo demee noonu parce que lamb boo ci jëm dafa laaj concentration yaa ngi dégg du damay dajeeg Siteu rek sama lépp dama koy dama koy yaatal maanaam concentration moom ma waroon mën moo tax lépp lu ma ci doon def dama ci am vigilance yaa ngi dégg parce que bés bi moom moo ko laajoon waaw parce que du ma ne Siteu laay dajee rek damay def lu ma neex déedéet je concentre sur Siteu adversaire la ñu war a bëre benn dimanche waaw loolu la waaw moom am na ci droit ah moom loolu moom la concerné parce que man arbitre sur le mètre du terrain arbitre mi fa nekk CNG moo ko fa teg man bëre naa ko lu mel noonu combat bu mel noonu maag mag Modou Lo ñu gagné ma par point. waaw ba ma ko bëree ak Modou ci côté saako yi ba ma génn ma ñëw arbitre arbitre avertissement ma ñëw ñu gagné ma par point donc kon donc lamb ji comme noonu la demee arbitre sur du terrain ñëw naa dox naa ci kawam la ma waxoon ci signature bu def naa ko. signature li ñu ci wax yëpp def nañ ko moom mooy fu mu teg tànkam danaa ko fekk te noonu laa doxee ba làmb jeex yaa ngi dégg yóbbu naa ba dem nañ ba ci saako yi dóor naa génn na arbitre solo le maître du ñëw na avertir na ko yaa ngi dégg tey làmb ji mujjee foofu yàlla def arbitre yëkkati sama loxo loolu la. que làmb ji loolu moo nekkoon yoon temps boobu ñu bëree ak bëri bu rafet boobu ñu bëree ñun ñoo waroon a dem prolongation yeneen cinq minutes parce que loolu moo nekkoon normal ah foofu nga doon xamee ñi pare ak ñi parewul waaw parce que ñëpp xam nañu ne Lac de Guiers pare na voilà ñëpp boo ko seede Sénégal ñëpp man grand place bu ma mos a romb dañ mën naa ma Lac de Guiers dalay lem dalay mais damay reetaan rek damay ree rek xam li ma xam toog parce que. Mm-hmm. non foofu noonu rek laa mën a bëreeg Lac te bi ma jàppee tamit action yi ma def foofu rek laa mën a yem ci action waaw. foofu laa mën a yem foofu laa mën a def kon li des yàlla moom moo moom yàlla tamit lépp lu mu def mënoo si dara waaw mais man CNG CNG CNG maanaam taxawaay bu ñu taxawee man ànduma ci waaw parce que li tax ànduma ci mooy affaire bi dafa waroon a dem bëre bu rafet boobu ñu bëre bëre bu rafet boobu ñu bëre man ak Lac de Guiers ak man ak moom nu ñu joxee lamb jooju dafa waroon a dem prolongation mais waruloon a jeexee si avertissement yoo xamante ne am lu ma la parce que man li ma am avertissement bi mu am ba génn mais faa ma génn parce que ki may bëreel waaw gis nga ko lu mu toll déplacement kese laa mën a tox laa bëreeg ba noor kese laa mën a bëreeg moom. di remercier aussi la presse comme li ñu à chaque fois presse bi ay jàmbaar lañu parce que à chaque fois ñu ngi daw fu nekk di jëli ay contenu muy góor ñi di jigéen ñi fu ne ñu ngi fay dugg. di wut ay inter di wut ay kii interview ah xaar ma jël diw xaar ma jël diw te loolu di wax ne un métier noble bi nga xamante ni ñu ko nañ leen ko yombalal tey presse bi ku mu soxla nañ leen ko yombalal ñu xam ne tey bu ñu siwee c'est en grande partie grâce à la presse parce que nit kenn mënul promouvoir sa bopp ay nit ñoo ay nit ñoo lay ay nit ñoo lay ay promouvoir di la defal li nga xamante ne yow mënuloo ko sa bopp wax dëgg yàlla man di leen wax ne tant que maa ngi tëgg làmb organiser la porte de la structure jàmbaar est grande ouverte bi nga xamante ne est grandement ouverte pour la press la presse en ligne ak képp ku mën a ñëw ñu ñëw ñu liggéey ñu liggéey ensemble di di remercier aussi euh, le CNG ni ma ko waxee woon sànq euh, ndax seen collaboration bu ñu liggéey ak jàmbaar rafet na trop mais di féliciter nag la structure euh, jàmbaar production jàmbaar comme la à chaque fois ñi fa nekk di liggéey ñoo gën a bëgg Mansour jàmbaar am ñoo xam ne samay kilifa lañ mais dañuy sonn ci affaire man damay mujjee rus ku ci mel ni Papa day bàyyi léppam mën naa ne tey man ginnaaw ginnaaw maam ginnaaw maam ba sama lépp Papa la waaw man ku laal ku laal Papa laal nga façon très humble nag ñun one est des sénégalais au delà de l'aspect organiser làmb nañ joxante cër ñu respecter tous les corps de métier loolu dafa am solo c'est très important tey làmb ñu ciy liggéey dafa bëri ku ci nekk cër bi nga ci am nañ la ko jox parce que tey ñun ñoo bokk réew mi bu ñu bëggee tey ku nekk am lu mu gis nga kii la may wax lu tax ma jàpp ko dafa fekk xaritam génn àdduna mu tabaxal yaayam kër acte boobu mu def moo tax ma jàpp ko loolu il faut nga am un grand cœur pour mun ko def ma looloo tax maa moom ñu am benn link bi parce que dama xam fu mu toll